damay naan ndeexati njaay ndeexati njaay sa xeex depuis ci ay at nga yàgg xeex bi am ndam ndeexati njaay li ngay dox ak li ngay daj dajoo dara même mission bu sa ansa say daj tey yow nga mën a toog tey bee jur di uuf ñu joxañ la tànn la atee nit kese moo xam lan moo tax nii leen atee di weer di uññi di wanele àddina gi lu ñu bokk ak lu lëndam lu nekk ci ñoom lu tax atee nit ko ci yow nga doon the top notch actor the lead positive acteur ci lii te ba tey foo taxaw ndam rek ngay am du coono destiny la te destiny bii Ndeye Khady Ndiaye danga bokk tey ci jigéen yi ñuy lim ña xamoon ñoo fi nekkoon xeex defar ba tey àddina gi toll fu mu nekk ni ci defar bi nga bokk den la fekkoon nga yor ñaar ñu utiliser kooku noonu nga nekkaloon ku la doon ñëppati di la wokk ne la baal ma ñaar nga yor moom mu bokk ci jëfkati bon yi ñu ko mu tuur mu sotti la jox la nga lekk pour éliminer benn te mënul éliminer dëgg leen bu baax jamono bu lii di am ne dañ la fekk nga uuf ñaar nar leen indi ci àddina gii atee nit ne fii lañuy ñuy doxee xeex bi metti lool ku góor ki dem ku jigéen ki taxaw ndax jigéen moo jiite mu xeex amal yaayam ndam fa mu demee bee jeex na ku góor ki di dellu si moom mu fekkee fa muy defaree fa muy jeexlee lépp nag nga toogaat même jigéen bi bu ëmboon toog kañu fekk tooñ ko jiital ko def na dañ koy sonal même jigéen bi mooy jaamoonloo ak yéen ba tey ndam xam nga comme li may wax nit boo nekkee si dëkk te xamoo yow li nga am xamoo sa doole xamoo li nga moom gëmoo yow li nga xamante ne yow leer gooy yootu fële mi nga yow ak kàttan gi doole ci lépp looy yootu ci keneen mi ngaa yow yow yaa ko joxe keneen jox la ko ci ñu kay koy xool di leen ko ñeese yaa leen ko jox balaa ngay xàmmee far nga xalangu ndeexa di jaay bul bugg kenn ne la masta du mu la mastaw dama ni la gën a takkuwaat ndaxte yow yaay da historité la te sonnoo benn yoon tey nga gën a njàmbaate ndaxte la ñu génnoon ba léegi moo dell si ci yow taxaw di continuer sa destinée destinée of jigéen victorieuse la amoon na fi ña ña defoon yow yaa jël relevé bi sa tur say sërsëtaan dañuy toog di ko waxtaanee ci côté bu positif bu baax jigéen histoire nga de doo n'importe doxal di dem dama ne la bravo mais dama la ne massa yërëm ma la parce que dama xam te dama gis victoire bu nekk ci yow bravoure bi donc dama ni la keep moving forward the victorious queen Mbera vidéo yi fii may ñëw di wax nag taag leen ko Marème Faye Sall ak Macky Sall a yompo di sama njaboot at first dafa mel ni que yéen Macky Sall ak jabaram gi Marème Faye Sall ñaar ñooñu lu ñuy def ak li ñuy doxal dafa mel ni que yenn dangeen di bëgg ñoom seen bur yi ñàkk fay day Macky Sall du moo jógoon Sénégal dugg Gambie ne day jàppale Gambie pour Gambie am jàmm te Gambie dafa am jaamu yàgg na ndaxte lii am Sénégal actuellement ni musul am Gambia donc Macky Sall ci boppam a yëm ko su gisee ne moom dafa war a bokk ci ñuy dox pour Gambia mun a am jàmm population Gambia am jàmm mu ëlbatiku nekk Sénégal moom ma jabar ci ñoom ñaar kese di def li nga xamante ne Gambien yi subir ñu ko mus ñu ko subir di def sénégalais li nga xamante ne waru ko def ñi teg seeni fen depuis 2014 ñu topp yéen sénégalais di ci tout deret yàq xañ ay business yàq économie bi di sàcc ñiy sàcc lépp la ñuy yootu dara duñ ci am ndam mais dañoo dem finalement ba créer ñoom seen groupe terroriste ak manipulation ci sénégalais mooy ci justice bi police bi ak ñoom ñu nekk ci parti au pouvoir ña nga xamante ne motuñu sa vingt ci dëkk ñu nekk ci Sénégal di def lu leen neex te yéen population bi yéen a ëpp doole seen même scénario bi mooy dem ci fen gi ñoom ñëpp xam nañ ñu ngi seen scénario fen ñu ngi seen groupe fen tout le temps ngeen di toog pour xaar waat du gis ngeen fi ñu dem ba seen scénario parce que ku amul dara nga xam ne kii yoru dara mu utiliser moom dëmmatuwoom jël ay groupe dëmm ñoom ñu former seen groupe dëmm di naan deret dëmm boo ko ràññee xam ko danga koy rey rey ko dóor ko taal ko lakk ko ni kon tey fu ñu toll nii démb rek la ngeen gis fontoo gi ñu leen fontoo yéen Marième Faye Sall ak Macky Sall kokkali gi ñu doon kokkali Sénégalais yëpp saaga gi doon saaga Sénégalais xamante doon lu bees ñii seen doom yi seen jëkkër yi seen yaay yi seen baay yi ñii nekk kaso la ñii ñu ngi doon ñu suul seen yaram mais seen esprit di continue di dox amul lu ci nit dajul démb la woon fin bi kokkali Sénégal yi Sénégal ngeen toog ba léegi tey képp kuy affaire Benno Bokk Yaakaar waroo dund waroon sa toog di nooyi yaa xam ci ban raison nga nekk dalee ko depuis bi ñëw na fa ma dëkk ba Ziguinchor ba fépp Sénégalais yi nekk képp kuy affaire rek parce que xam nga lan mooy ñu toog def seen yëpp pare reylu Sénégalais yi massivement yàqal sénégalais yi seen avenir depuis 2014 ci deux ans ba léegi ñu toog di kokkali sénégalais yëpp ngeen ne teg yëf du affaire ajuma de parce que ñun ajuma xam na lépp ñun xam nañu lépp yëf saaga Sénégal la Macky Sall ak Marème dañoo saaga senegal dañoo won Sénégal lépp lu taxaw di dund Sénégal yaa xam ci kow ba ci suuf yow da ngeen doo leen dara ñoom lu leen neex la ñuy doxalee par toog di leen di ree kokkali démb ba ñu wootee ña sanc ña togg mbir mi ña nga xamante ne ñoo war a wuy si wuy si ñu de Mamour Diallo ñëwul Dior Diagne ñëwul keneen ki mu tudd sax ñëwuñu lu tax ñoo Antoine Fine ñëpp war na ñëw ñoom ñëpp ñu ngi toog ñu ne xaalis réew mi lañ yor mun na leen compter di leen manipuler donc dam leen bëgg a xamal sama njaboot bi seen ancêtres yi bu ñu doon xeex ci mbumum jaam gi surtout ñun jamaat ñu bañ kenn ku ci bokk benn deret bu toq bu ñu ne jamaat am na ñu ñu captivité pour ñu niroo ak ñun xam nga lu ñu def lépp li nga xamante ne saaga la ak distraction dañ ko xeex bloqué ko éliminé ko donc boo leen nee résistance taloo leen leneen nax leneen lu dul focus parce que juróom benn weer dëkk des ngeen nettoyé li seen ancêtres yi ay mille sept cent ans la ñu xeex non stop non backing off lépp li nga xamante ne daf leen ni controverse distraction lii tax ñi tiire attention li nga xam ne non cesse duñ ci bàyyi xel seen focus mooy benn mission one language one word Macky Sall resign mu garaaw out of the country parce que desetuñ leen saaga amul lu des li nga xamante ne Macky Sall war na leen ko expliquer ñëy naan dañuy dem ci dialogue sa lu gën a garaaw mooy xam nga bu ñu toogee naan bàyyi leen di saaga kilifa yi ban saaga moo ëpp saaga bii Macky Sall ak Marème Faye Sall saaga publiquement sénégalais wax leen ma xam nga am na ñoo xamante ne xam ñu liy saaga ñun jamaat saaga dañ ko xam moo tax bëgguñu màndarga ñun kenn duñu saaga kenn duñu saaga saaga mooy nit fekki la yow see bopp ñoo joué la manque son am na màndarga bi loolu la Macky sal ak Marème Faye Sall def démb Sénégal waxuñu kenn de non waxuñu ajuuma Sonko Sénégal lañu jiital benn assassin xam ne dañ ko utiliser ñu bootu ci moom ñoom ñiy rey sénégalais ba di leen di kokkali amul beneen saaga bu roow bii donc nag toog di naan xale yi bàyyi leen di ma saaga man dama la dee laaj tout le temps ban saaga moo raw li la Macky Sall ak Marème Faye Sall saaga Macky Sall ba mu duggee Casamance naan waa Casamance tant ñun raxas ñu tuunoom googu day yooyu des ci tuunoom du jox Casamance lañu moom gis ngeen ñun lu ñu feyoo mandarga boobu bëgguñu ko moo tax depuis ci élection bi ñu ko dañ koon carrément fii ay doomu jàmbaara fi nekk ay doomu gor pur ay doom yi nga xamante ne ba ci seen maam yi doon xeex te bari ñu sa kenn saagul leen kenn utal leen mandarga moom mii doomu màcc do du ñëw utal ñu mandarga dañ ko lijjanti faj ko tey ngeen toog même Macky Sall ak Marème Faye ba pare na leen ñëw leen ñu dialogue <laughs> that's a curse Big Cuss tey dara warta toog sax kenn wartoon a am jàmm ñépp képp kiy affaire warta am jàmm Sénégal because tey boo amee ay quelque nit yu toog di endose Macky Sall ak Marème Faye Sall reylu di kokkali Sénégalais di leen def loo di leen di loo pare toog dem ba àgg ñii la ñiy expliquer ay daadaa di wax lu wér di ñay toog di ka naan ñëwal ni ina yéen <laughs> you dama dee kontaan bu ma waxee si yàgg ma ree sama rey dafa bëri façon anyway perhaps Marème Faye Sall taagal leen ñu ko Marème Faye Sall dama ne formation ba nga joxee ñépp ñi nga fay ñi toog fu nekk di saaga senegale yi di wax lu leen neex wax amul wax yi xamante ne depuis ba nga nekkee ci palais bi première dame bu sénégalais amul leneen lu bees démb ba nga ngembee Adji ne ko carrément ba nga koy woo di ko da nga ni ko Marième Faye Sall laa wax de lu mu wax Adji Sarr da ni ko côté ay affaire violé yu yëpp am dara doxatu ci parce que xam nañ da ngay lépp waaye yow li nga bëgg comme la nga fay ñeneen yi nekk ci plateau yi nekk ci tiktok yi wala nekk ci euh, internet bi di saaga loolu nga ko ngemboo ne ko carrément nay leer soo demee wax yi fu mu gën a ñaawee na génn nii ngay waxee nii ngay waxee soo Marème Faye Sall sa formation ba léegi ñun gisaguñu lu ci bees because la nga yóbbu tribunal Adji Sarr jàkkaarloo ak juge bi di saaga juge bi di saaga ña ña ña toog sax say juge bopp yow ña nga fay pour ñu jàkkaarloo pour àtte la nga wax Adji Sarr pour muy saaga juge yi def na ko de waaye dara man lu ma ci métti mooy dara du bees ci pour man maa leen doon expect yow rencontre bi nga am réunion bi nga am Adji Sarr di ko préparé nga toog ak sa gàngoo di ko wax li muy def ba mu demee wane fa dara lu bees parce que lépp lu nekk ci biti la ngay fay nit ñi di saaga sénégalais la ngay fay yow say éléments yi dof yi xamante ne xamuñu dara comme yow. ñii saaga loolu da lañ yóbbu tribunal bi donc yow génn nga comme ni nga ko waxee viol amul lépp dara amul mais ay saaga da nga bëgg lay jolli far nag nee naa la ña ngay jàkkaar lool ñun jamaat lañu balaa ngeen di xëy fekk ñun xëy nañ bu yàgg ba toog jamaat ci kër mooy teel a xëy tëj ñànkatanga mu weex tal di saxaar teg gejj gi su ci tuuti loolu lay ndëkkee dank bu yàgg raxas ndab yépp dëpp ku taasoo bu mu dëpp ko muy bale nag di bale heure yi ñuy bale mbedd yi nag yéen ci ngeen yeewu defe nit ñaa ngi neloo ba léegi mën nga dem def la ngay def démba sa élément bi amul daal lu mu wone lu dul kokkali Sénégalais yi waaye Marème Faye maa ngi ñëw ci yoon ak won la c'est dommage because Marème Faye yow bu ñu la tànnee en tant que première dame Sénégal bu ñu la tegee ci screening ci écran géant pour ñu xool yow sa parcours ba nga nekkee première dame Sénégal lan nga mën dooleel jigéen senegaal amul fenn li tax tey ñii naan ay premier dame seen mission toppoo ko defoo ko wonewoo ko danga ñëw ak sa beneen mission waaye nag bu la dara metti parce que yow mii toog en tant que ñi naan premier dame bu Sénégal toog naan dangay jël Adji Sarr jàngal ko li mu war a wax yow jarul expliquer soo ko tegaloon sa vidéo bi mu gën a yombal mbiri ci moom ndax mu xam nan lay élaborer ak bii saaga juge bi ak di wax juge bi yow naka nga ka doon doxalee lu gën a obvious ci seen xeex maanaam da ngeen maintenul donc cap sew leen an da ngeen maintenul brand bi parce que seen brand boo leen ko maintenoon à least xëy na bi ngeen mën a am tuuti fenn fa xamante dañu ne tane na mais from there mosu leen am continuité ku doon seetaan seen scénario day get lost muy laajte fan la nekkoon seen actrice principale bi sa mënul acte yéen mii extra yi sa mënoo leen acte background yi sa mënoo leen acte yéen ñépp da ngeen a fete Marème Faye Sall yow fu nga demee ba xam ni que ndeke nii lañ dee defee jigéen yow xam nga ko bu baax ndaxte lu gënoon a rafet mooy jëlal exemple sa jëkkër ndaw kàpp yi duuf ak lupp yaatu. ak ñuul tuun ba muy demee di maasew ji ba summeeku xam nga lu gën a ñaaw mooy la ngeen di yóotu suñu njaboot bi ba léegi am na leen métti parce que mënoo leen kam mooy lan benn ndaxte lépp lu wër ci yenn seen groupe APR Bennoo Bokk Yaakaar suñu njaboot yi kenn sumul seen tibee loolu leen métti kenn gisul seeni lupp métit googu na bu nekkee ci yéen parce que lépp lu leen wër dangeen a summente tubéy ku nekk xam na sa koddal morom ku nekk xam na sa morom nu muy daanoo nit boo jàkkaarloo moom nga xam nu muy daanoo danga koy ñeme donc lenn moo leen jaaxal mooy suñu njaboot bi doo leen mus a gis fu ñuy daanoo doo leen mus a gis seen lu ak doo leen mus a gis seen koddal loolu metti leen c'est dommage yow Marème Faye Sall yow fu nit ñi doon séentoo pour xam sa daanu foogoon nañu Sénégal kese la ñuy xam sa daanu mais sa daanu moo ngi lëmbee ba kii Dubaï Arabie Saoudi Qatar say yuux ba vidéo di circuler Macky Sall ay kàppam yu duuf ak ay luppam yu duuf ci kaw table massage mi ngi circuler underground ci loxo nit ñi depuis 2012 2011 jamono gi muy ut réew mi jàkkaarloo Abdoulaye Wade xale jigéen ba ko doon maase ba ñu rawle ko yóbbu ko France ba mu nekkee président kooku mu ngi yor lu bari te joxe na ko. loolu moo leen métti parce que dañoo yor ci yéen yéen gis nañu seeni kàpp ak seeni lupp sa jëkkër maase gis nañ ko. looloo tax ngeen xam lan la ñuy expliquer ci massage parce que. kon que moom jëlewu ko ci Ndexadi Njaay yéen mii nga xamante ne yéen a comprendre massage te pourtant ba ngeen expliquer am na lu bëri des soo leen ma woon sa ma jox leen yeneen feem parce que ay body body yeeg da ngeen a def parce que da ngeen dégg nit ñi di naan body body mais massage comme lu ko loo leen ko waxee massage day am ko fin moomay massage pelo bi. extra lañ ko tuddee soo da dem di bind di dëgg ñay moom salon professionnel yi nekk ay Europe wal surtout fii Amérique la ñuy waxee parce que body body fii la anglais la xam ne France moo leen coloniser ngeen mën a concentrer ci français bi. Marème Faye yow comme que yow en tant que première dame sa sa parcours yépp dañ la tuddee the first lady with the porn star. sénégalaise first lady porn star bi nga xamante ne amoo fenn fu nga réussi lu dul Dubai Qatar ak kii Arabie Saoudi ànd ak sa groupe li ngeen def ak li ngeen yàq ci der doomu sénégalais ak la ngeen saaga ci sénégalais ba tey ngeen dese juróom benn weer xamoo leen ba léegi ni atee nit ngeen nekk di jàkkaarloo nii Ndeye Khady Ndiaye def fu mu leen foo ngeen ko fekkaat encore woo ko de war na leen jox seen mbool ngeen xam ne ci destinée am la nekk du tell a histoire mais Marème Faye Sall yow yaa dul tell a histoire yow yaa dul tell a histoire because sa histoire salte na ba ña ngay àndal sa nga leen di saaga. ba nga demee préparé ne ko boo demee taxaw jàkkaarloo juge bi nel juge bi moom démb de Adji Sarr taxaw juge bi ni muy def yëpp la doon wax moom parce que lu gën a neex mooy ngay xeex xeex xeex bi nga xamante ni yéen entre yéen amul fa juge yéen mel ni yéen a nekk di dox de yéen a woote seeni tribunal ay sàcc yi porté plainte ngeen teg seen yëf seen daanu bopp ngeen daan seen bopp yéen nu mu leen neexee ba tey. kenn faalewu leen ngeen indaa di continuer seen tribunal bopp ngeen di doxalee seen bopp yéen comme ni leen nit ñi war a xamee pa boo leen teg mooy nit ñi gën leen xam parce que loo leen def ne defal leen ko kenn du dul seen bopp Marème Faye Sall bul ab loola métti bu ko teg keneen ak keneen yow yaa ñëw ci nguur soo xooloon premier dame yi fa jaar yépp du ñu ay sénégalaises mais nga doon premier dame sénégalaise nga war a am jom am fulla doon fettee jamono da nga nekkoon fii New York doxaanante ak ñoom Cheikh Yérim Seck ak ñoom benn kii xaw ma ay ñoom ah, Paul Barclay ay ñoom ki ngay kattan tax ñoom guddax bëccëg clip ñoom Koura Ndiaye ngeen nekk di summeeku leen nga boo demee bañ jox la benn title ne la at least post la nga am change ba nga xamante ne dangay góorgu ñëpp ñi xamoon ci yow ñu mun la soutenir nëbb lépp xam nga dañuy raxas defar parce que dañu ne ah léegi dafa changé. première dame nga représenté Sénégalais yi dignement mais ba nga nekkee première dama nga am de opportunité kii clé yi bëri nga xam ne war nga ko utiliser utiliser ko ci côté bu posé da nga ko utiliser ci côté bu bu santé mooy continuer sa mission of hooking sa mission of prostitution sa mission of jaayum data continuer la nga doon def ba léegi bàyyoo ko sa ngir tuur sénégalais yi nga xamante ne seen pale nga nekk mais nga continuer ko looloo tax bi nga ñëwee loo njëkk cible mooy ut kenn ka ngay utiliser ne ko 14 gàddu nag say CSG ngeen di ko katt kattee am ñoom Ahmed Khalifa Niass yëpp dañu war na atteindre démb xal euh, Adji Sarr ñoom ñëpp la doon saaga nañ ko parce que loolu yëpp ci yoolu ko jàngee ay ñoom Khalifa Niass ñoo ko jàngal ñoom Bougane Gueye Dany ñoom Moussa Fall ñoom euh, Antoine Félix ñoom Macky Sall ñi ko jàngal dañoo bon ñoom Mamour Diallo ñëpp si les seize ñoo ko jàngal loolu yëpp xamu ko woon waaye ba ngeen ko tegee ci kër ne surveiller fa ngeen ñëw jàngal ko lépp lépp moom mii délivré liñ ko jàng lan nga war lan nga war a expliquer nit ñi. lan nga war a wax ci ci young lady yi parce que première dame yow première yaay première dame bi nga xam da nga supporter caal lebo da nga supporter caal bii na abuse da nga supporter rapiste da nga supporter women bi women's rights being violate parce que tey boo amoon yërmande ci jigéen boo taxawoon ne carrément jigéen dañ ko war a protéger ak doom depuis ci ndeexa di njaay ba nga tegee sa diil di target targetoo kenn du du jigéen bu ëmb toog ci place am bi daan doole déet waaye nga jëli xale bu jigéen nga xamante ne yaayam gaañu nga war doon yaay ci moom nga utiliser ko tamit comme sa instrument muy dem xale bi nga jël di ubbi tànkam yi ñii dugg rek comme 16 21 remorque drive through tey mu noonu fu muy mujj. yoo xam nga ko man xam naa ko ndaxte kii doo leen ko bàyyi mu nooy fen ndaxte secret état moo nekk ci bopp ci rey ko ngeen mujj ndaxte di la xamal ni que lii ngeen dox kooku yéen la concerné ñun tollatuñu fi ñu naan àtte leen joxe leen ni non ci guerre ngeen ñu woo te dañuy guerre ak yéen ba ngeen a daw di bàyyi seen dàll ngeen génn Sénégal yaa si jëkkër Macky Sall ci guerre ngeen ñu woo dañuy geer ak yéen ba summi seen daal yi daw abale génn Sénégal yaa sa jëkkër Macky Sall kooku bu yeboon na ko def sa bopp mu leer la nañ yow yaa dul toog bay teel ay histoire yow yaay dem ba ruus ku bind sa livre te xale yi ñu ngi koy préparé nañ ko bind pour la première fois dans l'histoire du Sénégal première dame juddoo Sénégal yaroo Sénégal nga ñëw doon moo tax lépp loo teg jiital nit di wax démb loolu am na ba pare parce que ñi ngay fay ñi nekk ci social media di saaga di génne lu raw loolu démb du lu bees lu xale yi expectoon mooy dañu da ngeen ne ay vidéo ngeen am seen làmmiñ rëy xale yi loolu lañ doon wax parce que bu ma seetloo nit ñi seen réaction dañ doon xool preuve yi ngeen doon waroon a génne mu métti leen dikk ay dul ne loolu dëkk métti nit ñi mais dara bees fa sa jëkkër Macky yow soo munoon soo meloon li nga war a mel saf paarulu boo safoon saf bi nga war a saf am classe am personnalité nekkoo fee di di nekkuñu di la partagé Dubaï Qatar Arabie Saoudi sa jëkkër dina dem di ëpp ci ñoom yaay aw ak ñoom euh, Fran euh, euh, nu mu tudd sa Fabien Filio ba ci ñoom Juma Jeen Jaxate ba ci ministre yi mu lim yooyu yëpp ay ministre de la fem yooyu yëpp nekk foofu ministre de la zone nekk borom taatibe yi nekk ministre yi nekk ci kawar yi est na dem ci ñoom tey ñi nekk foofu na tey di rey seen bopp ay poto de wayaan yu alaaji mbay xam nga mbay peex ñu ñoo xam dañuy toog ñooñu nag mënoon nañ lu dul yéen a koy yóbbaale ni doonee ay màcc doo ay jaam ci Sénégal noonu la Sénégal dafay erreur teg jaam ci biir palais waaye at least ngeen mënoon nëbb seen bopp ut beneen page beneen facette ndax ñu mu leen a goreel waaye deret comme li ñoo dafa xonk kenn mun ko ëlbati mu weex wala mu bulu ku nekk la nga jëlee ci sa ruut sa taatu garab sa racine garab moom ngay màggaali dem kenn mënu ko dindi xanaa rey sa bopp dellu si waat ci ñoom lu leen métti nag dina leen métti ba keroog te seen doom yi dinañ ko expliquer seen doom yi seen sesika is continuity generation after generation moo tax ñun jamaat dañoo fier suñu doom taxaw fu dëgër suñu xeex dëgg la de xam nga jamaat lan moo koy handicapé jamaat mu tooñ ba pare ne day xeex du dem fenn du mun a avancer du mun a am doole suñu ansa say duñu supporter atay mit duñu supporter ay doomu tuur lañu ñun ko saanum lañu dëgg rek moo ñi day may doole du leneen la leneen xale yi bi ñuy ut lii avancé Sénégal lii yokk Sénégal lii lii dooleel nit ñi lu leen di may lu ñu war a lekk yéen a ngi ut lay yàq Sénégal amul loo leen deful tuur ngeen deret saraxe ngeen lu ne def ngeen ko ba tey ba ngeen dalee di saraxe Sénégal yépp ngeen tuur ay deret di suul ay mala mala toroxal ga ngeen di toroxal mala yi ci boppam sax loolu kese yéen a ngi fees conséquence ak mala yi ñaata at ba ngeen dalee tuur ay deret ci lu ñàkk fayda ba tey at mit mënu leen fekk ci yéen la ngeen bëgg suñu ancêtres sa bëggul leen fekk ci yéen la ngeen bugg saa yu leen yuuxoo de yéenay wonaat seen yuuxu foo leen tullee yéen a koy fecc foo leen fentee woy de yéen koy aw foo leen laal mu metti nit boo defee ba pare da ngay accepté yow sa doom a nga fii mel ni bele ku jigéen ki yow lijjanteewu ko jëloo ko boole ko ci sa groupe porte à bi. jële ko boole ak sa groupe formation bi dam dame capteuse porn star bi nga continuer sëy lépp la ngay def yow xa yow sa bopp nga xas sa bopp sa ngay représenté Adji Sarr sa image la sa image la sa caractère parce que su demee ba jàkkaloo Sénégalais yi bëgg leen wax lu ñu war dégg mu génnaat feneen représenté wu kenn ku du Marème Faye Sall parce que Marème Faye Sall loolu lay def suñu porn star fausse lady bi sa jëkkër lu mu def moom la doon expliquer